Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs de Equivox TV ñu ngi fii nekk comme niñ koy defete euh, événement yu mag yëpp xam ngeen ne dara du leen ci ump marche bi ngeen di gis nii ci suñu ginnaaw waa one million marche ñoo koy amal nag bàyyi ko ba ci diaspora bi ñoo amal fi ab marche bu mag ànd ak ñi nga xamante ne ñooy le leaders de l'opposition li ñuy ñaxtu nag mooy ñu delloo leen seen i carte gis nañ ne démocratie amagul ci réew mi nga xamante ne mooy réewum Sénégal ñoom li ñu mooy ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall daal noonu nag euh, gis ngeen ñi ngi ko tàmbalee fële ca Bourguiba euh, comme euh, ni ñu koy defee saa su ne ca buntu casino ànd ak ñi nga xamante ne ñooy leaders yi bokk na ci waa Gëm sa bopp Thierno Bocoum desul gannaaw Amsatou Sow Sidibé ak yeneen leaders tamit ñu ngi ci marche bu mag bi nga xamante ne waa one million marche ñoo koy amal dañuy daal di xuus rek ànd ak ñoom ci biir marche bi ñàkkul ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ku ci nekk nag daan yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lii waaye ñi nga xamante ne it dañ leen daal di rëkkale ku ci nekk daan ci sànni sa kàddu nañu jës waaye marcheurs yi tamit yëkkati nañu ay cadres tamit. voilà pour ce grand marche. écoutez euh, l'objectif est très simple. c'est d'avoir un pays avec une démocratie renforcée. Notre démocratie aujourd'hui est malmenée. Notre démocratie est piétinée par une équipe de grands bandits. Ce qui les intéresse, c'est de s'accrocher à leurs privilèges. Nous avons besoin d'un pays stable, des élections libres et transparentes. C'est exactement ce que nous demandons et je crois que ce n'est pas trop demandé. Oui, je, voudrais d'abord nous féliciter de, de, cette initiative, qui est une initiative citoyenne, euh, entreprise par des Sénégalais qui ont foi en leur pays, qui pensent que les choses doivent changer et qui véritablement se sont ouverts à tout le monde, parce qu'il s'agit d'une manifestation citoyenne. pour régler des questions d'intérêt national. C'est important à un moment donné dans un pays que tout citoyen puisse se lever et dire non à certaines dérives. Et je pense aujourd'hui, avec cette initiative, nous avons l'occasion de mobiliser le Sénégal dans sa diversité. Il ne s'agit pas d'une manifestation politique, il ne s'agit pas d'une manifestation colorée, mais d'une manifestation citoyenne. Donc nous considérons